des fois dañuy dem kii euh, dañuy dem ca ci région yi dem jënd fa mbaam yi indi leen commencé liggéey. Euh, kii euh, ci fête la ñu jëm nii mën naa ko jaayee trois mille cinq cent wala wala quatre mille. yàlla ça dépend ni mbaam bi toll. waaw waaw ah, maa maa ngi maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla. njaay bi mu ngi noonu nit yi ñu ngi doon nit yi ñu ngi ñëw nit yi ñu ngi ñëw comme fête bu nekk nit yi ñu ngi ñëw. juróomi ne parfois trois mais fête yenn saa yi day dem ba dix. tey njaay bi doxu na mais njaay bi mu gën a am importance à suba ak gannaaw suba. Ah, bi. Ah, mu moderniser moderniser marché bi ñi mairie bu mu répondre aux normes affaires amna et dañu bëgg marché bi gëna évoluer lu parce que c'est le seul marché au Sénégal qu'on peut trouver la viande de porc. Et aussi, il y a des étrangers comme asiatiques, européens, euh, confondus, qui viennent ici. Ils viennent se ravitailler. dañu ñëw ravitaay fii ci marché bi loolu moo tax marché bi état war na tenir compte essayer de nous aider à développer notre euh, acquis pour ñu suñu marchandise gën a jóg. Hmm.